defal mag ñi nga xam ne ñoom ñoo càllaloo ci askanu mbuubeen bu baax woowu nekk Kaolack di taalibe Sëñ Basiru ñu ngi fi nag feggoog euh, soxna su baax si nga xam ne nii moom mooy nday ndayi kër gi buñ ko waxee wajur sëñ Balla dugg na ku déglu waxtaan wi ci njëkk gi di nga xam ne moom mi su waxee rek war naa mën a wax turam nag mooy ajaratu mbenn bu bëgg sëñ Fallu wala ajaratu mbenn bu mu sëñ Fallu kon dañ koy jox rek ci kazu ci màggal gu gu sell gi weeru safar yi mhm. bu ko defee mu ubbi ay kàddu yu nuyoo rek ñu soog a tàbbeek moom nag ci waxtaanu kilifa yu baax yooyu bisimilah Adja Mbène. ok salaamaaleykum. Adja Mbène bu bëgg sëñ Fallou. maa ngi leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram. man Adja mooy kilifa kër gi. Ibra Fatim Mbubb mooy baayam. bëgg doom lool bëgg sët lool. tam njaboot gi indi ci kër ga alaaji seex alaaji Balla Mbuub ku baax la ku bëgg seex ja la ku seex ja Mbuub ku topp alaaji Balla la amul jëmukaay ak moom fi defoon bàyyam fa la ko def digganteem ak Abdou Faati Mbuub borom caw leen amul dend seen liggéey lépp benn la li seen jafe-jafe nag ak seen dëgg-dëgg mën naa ko wax ndax julli ak jàpp mooy seen xaw boo yëgee ci si alaaji Abdou Fatim bu yaa ngi ko fekk mu yor kurus yor téere jóg ko fii di julli di jàpp soo demee Cheikh ja noonu nga koy fekk ñoom amuñu gàkk liggéey nañ ci nguur gi ba jóge fi kenn amul amul gàkku gannaaw kenn newu leen loo ma yoreel ak loo ma jox jullee jàpp rek mooy seen liggéey ak bëgg seenu njaboot lu ñu am jox seenu njaboot lu ñu am jox seenu njaboot ku bëgg boppam la ku bëgg Abdou Fatim la mu Cheikh ja moo ko Abdou Fatim du ñaar kenn la mën naa wax seen diggante lu baree baree bare yàlla nañ xeppee jaajëna di barki sëñ Fallou yàlla nañ xeppee jaajëna julli ak jàpp mooy seen i prix amuñu xarit amuñu àndandoo julli kurus gi mooy seen xarit ak alxuraan leen seen bay jàngal jàndal moom lañ xam boo boo ko waxee rek la ci Abdou rek mooy la ca seex moom laa xam ci moom ndikku fa Abdou fa ndikku may mi nga xam ne moo di baawam jéggal na ko yëg na yëg na ndigal da wéy na ci waaw moom di ku mbay xoolul gisut lu mu gis lu mu gisul doy na ko lu mu xool gis na ko xoolul fi kenn bëggulu kenn dara xanaa jàpp ci njabootam jéggal Abdou Faty loolu laa xam ci moom maa moom nag duñ ñaar kenn lañ ndikku mbay ñoo bokkoon kër ga ami sekk moo ñu fa jiitu ndikku ma teg topp ci ndikku mbay topp fi ñu doon benn faal ngàtte fekkuñu fa kenn suñoo xammee boo ayee ration ak sama ration benn la suñu mbindaan benn la kenn mu ñoo xaajale la ma xam ci moom mu xam ko ci man suñ doom yi xamuñu ko kon nag mbay mbasu yàlla na xeppee na moo jël sama doom sédde ko mu dikk def ca la war ñëpp mu def ko ci moom moom di ko mbay faal ngàtte ma sédde ko bekkaay jaay ñun suñu diggante amul xaar ma yàlla jàmm rek la ñu am kon nag bis bii di tax mu dajeeg bisub seex jambub bi day bisuuf sëñ Tuubaa bi dajeeg bisub seex jambub bi dafa bëgg alxuraan bëgg diine li mu feebar yëpp dina tëdd ci lal bi def asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum màggal gàmmo du tëdd ci lal tamxarit tëdd ci lal kurus lay def jàpp julli kafe gi yëpp ni ma yóbbu ci jàkk ji moom laa ko xamal lu mu am jox na ko sëriñ bàyyi sëñ Ousmane Galaxo ma saa ñëw mu ne man soose si maa leen soose woo mooy day def seen bànneex ci ama xam mi nga xam ne taalibe la say def bànneexam ndax bëgg sëñ Tuubaa kon nag yal na xippee jaajën amul kenn bor amul kenn xaar ma yàlla bëggul yëfi tubaab xawul tubaab dañ ko joxee baas yi ne ko ablee ko ku ko ne am maam mu ne ko bëgguma sa dërëm naa nag ma delloo si baas yi rek ndax damaa ne di liggéey ci nguur gi ci bëgguma kenn gàkkal ma ma génn àddina ñu ne Cheikh Jambub kan moo fi jël nangam moo fi jël nangam su ko defee samay doom di am kon nag dama fi dund ba dee rek dama su ma sañoon tey ji su ma neexoon maa may étage am waaye li ñu bëgg bëgguma ko man yàlla laa bëgg ak sëñ xaalis bëgguma xaalisu tubaab bëgguma alal tubaab sama alal bopp doy na ma lu ma bokk ak sama njaboot bu ñu ko déplacé loolu lay wax bu ma téléphoné mbeen mu ne ah mu ne maa ngi béréb sàngam def ma ne ko maa fi doo ñëw ma ne ko naa ñëw mu sama bay bi faat ne naa ko yóbbu mu dem ndax bu ma ko yóbbu mu dem sax du fa toog bëgg njaboot loolu bëgg njaboot bëgg sëñ Touba bu bàkke waajuram seex mbuub waajur sëñ Basiru lañ ko tudde sëñ seex moom lañ ko tuddee parce que sëñ Fallou su ma mosaa toogu bool yóbbu ko yónni ko da koy xam ne kii soxna bi Seex Jam la amul la kenn xaar na yàlla bu mosaa nuyu ji Alaaji Balla ba ni mu toll digg suuf mënatut rek dem day wàcc ci wati bu ko defee na koy yégal Seex mu ne ko du ma yëg dinaa wàcc ba nuyu la delluwaat tant que maa ngi mën a ñëw dama lay nuy si. fam ko tegoon fa la teg biir Faati moo ko Abdou Faati ñoo bokk jug am di mbubb di seen rakk topp ci ñoom moom itam bëgg ma loolu. Abdou Fatim sama xol ak xolom benn la ma wax sax mu ne mbeen ni ma la bëggee maa ko xam bu ñu wax ne mbeen moom la seex bëgg la la nga bëgg la seex bëgg xamuñu ku sëgg loolu na def nag ni nga def boo ko defee seex bëgg la loolu laa ko xamal am këru këru kilifa di jaamukatu yàlla di ku baax du ñàkk ay ay niti diine di fa ñëw bu ñu ko waxee nag yoonu murit bu ñu ko waxee sëñ Basiru ak waa këram kilifa yooyu daa fa ñëw mm-hmm. yan yan jëflante ak yéen ngeen daan jëflante ak moom yéen ñi nga a nekkoon ci fa ñëw te sant ga daañ fa ñëw waa kër sëñ Ousmane Galxo fa lañ daan ñëw fa lañ daan dal moo ngi dem baa daan dal bu ndikkee bu fekkul àlla ji bàlla seex ji moo leen ubbil jox leen dalukaay ñu leen dalal di leen teral ba ñu génn kër ga ndax ñun surtout sëñ Fallou lañu Allé Samba Gueye mooy suñu maam sëñ Fallou daal ñëw këram mu di ko gala dalal di ko gane Omar Mbuub mii sëñ Ousmane mag mu mag ma da ñëw këram mu di ko dalal moom tuddee ko sëñ sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara papam tuddee sëñ Ousmane sëñ Ousmane Mbacke mu tuddee Ousmane Mbacke doom kon na ñun waa kër sëñ Touba rek la waaw jullee jàpp rek lañ xam ak bëgg Cheikh Rafal maa ngi laaj sëñ la léegi naan ko yéen de ni ngeen daan wujjee du woon ay mbubb yu foor ak i takkaay waaye sàkku ngërëm ngeen daan wujjee loolu loo ci wax ndax gone yi mën cee jàngee. waaw waaw dañ daan mbubbee takku rek di liggéey te kër ga di bale di lal di fóot di paase ku fa dikku ñu dasa mi naa ne sax xeeb nañ ko ñun ñooy tudd suñu bopp maa ngi di ko may suñu lépp benn la woon ba ko di ko rey ci ñoom ndax dañoo bokk jukko damay wax sax mënuma ma ko wax fii ndax fa ma jaar ak moom mënu ma faa wax ak kenn xamul dara mu wax na mbeen nangam ak nangam ma def ko ñu nekk takku rek bëgg sëñ Touba bëgg sëñ Fall di julli di jàpp di bale di lal gar guñ gis teral la dañ guñ gis teral la nga jóge ci waa Mbàkke bi ne teral ba ngay dem ñaat bu ma saa jot dañuy tegoto gaare ko su njabootu Cheikh ja ak njabootu Abdou dugg jëm kan sëñ Ousmane nga loxo di fa liggéey ba nga liggéey ba jeex ñu dugg garoto ñoom dañ ko na maa ngi di ku mbay naaka mi sekk ñoo fa nekkoon ak Fall Ngàtt kon nag man seen jaar-jaar moom xam naa ko ku mu tuddeegu doom moom seex ja jox na la cër tedd na la doom bàjj Fatim Mbàcc moom la jëkk a doom xaritam muy Abdou Fatim tudde Alaaji Balla doom Asan mu sedde ko doom Mbay Mbuub mu sedde ko doom Ndey Binta Asan mu sedde ko ndaa Bale kon nag amul ak benn doom bàyyi xaar yàlla ndax ku mu tuddeegu doom rek sedd na la doom yaa ko maye yaa ko yor man mi sa bàyyi bari lañ ma sedde moom may seex ja mi ma doon sëyal kon nag li tax mu am dii nag dafa dajeeg waa kër sëñ Touba yi li tax ñaanam gi dajeeg waa kër sañ Touba yi dafa bëgg di islam bëgg dii diine ba bekkaay mi xam ko ci moom fu mu mos a dem ak bekkaay ànd fu mu mos ba tey nag moom moo yor ñaan moo ki rakkam boo ko lu mu ciy def na ko Yuusu Yuusu ci ànd ci moom mu di ko def ba mu fi ba tey yàlla na ko gën a mën nag moo ki rakkam ku mu bokkal ndey am ku bokkal baay. ñoom ñii ni ñu àndee di ay doomi baay ba noppi te bët maanaam yéeneente jàmm ku nekk sa moroom am gënal la nga am loolu loo ci loo ciy indi jubóo googu seen biir. ci seen waajur yi la bu ñu doon tënkoo wala ñuy tongoo wala ñuy waarante kon doom yi duñ juboo waaye bu ndey juboo rek doom ji jubóo moo tax bu ndey juboo rek doom ji jubóo te bu ndey liggéey kër baay rek dana añ lii seen liggéeyam ndey moo ko waral moo waral ñuy sa at mu jot ñoom ñu defal seen baay ñu sotaale ki rakkam at mu jot ñu defal seen baay ñoom ñun nekkuñu fi xale yi te isu bekkaay rek a fi ne moo tax at mu jot rek mu sos ko moo tax ca kanam rek kenn du leen yërëm ci kenn du leen tan ndax sama xol dina guy ci ñoom sama xol ñoom lu ñu war a defal ndey rek defal nañ ma ko lu ñu war a defal ndey rek sama waa kan defal nañ ma ko muy góor muy jigéen yàlla yàlla defal leen jàmm mm. ci barke Seydina moom barke Sëñ Fallou maa ngi leen dund maa ngi leen sant barke Sëñ Fallou rek barke Seydina yan kàddu ngay tëjee nag jëmale ko ci màggal gi ak sëñ Muntaxa ñaanal ko mu yàgg fi te wér waaw xanaa sëñ Muntaxa ñaanal ko rek mu yàgg fi te wér Mbàkke yàlla na fi yàgg ci ndax yàgg mooy suñu njariñ mm. yàgg sëñ Moustapha mooy suñu njariñ yal na fi yàgg lool bàkki bàlla isil maam ja sëñ Muntaxa yàlla musal ko ci catam kum ndox toogaayam bi yal na doon toog yi toog yi toog yu baree baree bare te ànd ak taalibe yi jigéen ñi ànd ak taalibe yi góor yi ànd ak waa kër sëñ Fall ànd ak waa kër sëñ Touba ànd ak waa kër Seydou Fall moom sëñ Muntaxa yal na fi yàgg yàgg fi yéen ngeen yàgg fi yàgg ànd ak Abdou Fatim mi yàlla bu mi mu ngeen yàgg lool ndax. booy naar ji nga ko wax de moom nee na di nga di nga eh, ko wax moo tax nag ku waxee na ko booy naar. waaye nag sañ diggante dara xaju si dara xaju si Abdou Xadi Gëwal Seck nga xam ne maa ngi moom bokkoon Seex ja nañ ko yàlla na ja yàlla ma digganteeg moom kenn xaju ci woon lu may def maa ngi moom a koy def su ma entré mooy yor sama njële di ko togg sama doom entré moo jël sama njële di ko togg tey rakkam doxul sama digganteek moom moo taxit lu maa ngi ñaan yàlla njabootam gi ma fekk ci lépp rek ba lu ma ci bëgg a def def ko ci ci barke sëñ Fallou may Abdou Faty mu ndaw maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm mooy sama taaw bu góor xaru sama digganteeg ay rakkam jaxasoo naak ay rakkam jaxasoo naak ay magam Balla mi nga xam ne moo ko mag ñu bokk bàyyi dox na ko cër wan na yàlla defal leen jàmm ci barke sëñ Fall yàlla nga fi yàgg lool yooyu ñu yàgg fi bu na gën déwee ñu fekk ñu fi barke sëñ Fall ci maan la ko wér ok xam naa ne mbokki internet yi ñu ngi leen di santaat bu baax ci jotaay bi nga xam ne nii amaloon kook soxna su baax si nga xam ne nekkoon ci kër gi di fi sàkku barke uuf njaboot gi eh, doomam ju baax ji ànd kook ay magam ak i rakam muy Bécaye Mboup di wax fàttaliku wajur yi leen ñaanal ñu daje woon fi tey ji nag ci Toubaal Mahrousa muy dëkk bu tedd bi waaye ci biir weeru safar gi di waajalaale màggal gi ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te wér lool te ànd kook taalibe yëpp ba lépp lu mu naan a liggéeyal Sëñ Tuubaa mu sotti colet am ci ndam te naalaat yeneen te ñu ànd kook moom